عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق léegi nag waaye boo xoolee way juram bu jigéen di Seyda Fatimatu Diagne ci mu siiw ci maam Faat Diagne jigéen la woon joo xam ne moomit mu ngi bokk ci saalihaat yi aabidaat yi taqiyaat yi jigéen ñu yiw jigéen ñuy jaamu yàlla jigéen ñuy ragal yàlla jigéen joo xam ne ku bëri woon lu muy saraxe la jigéen joo xam ne ku joboote woon taalibe la seetu ci woon ku mu jurul néegam foo ñëw da fa fekk ñam te ñam woowu mu ngi ko doon dencal gan ñi ak waytu mu yi mu amee ngërëmal sëriñ bi lool kooku mooy waajuram bu jigéen maam Faat Jaañ moomu boo ko toppee danga delloo ji maanaa njaañeenu rip boor boori faalifa gannaaw ñooro ñooñu sant jaañ dégg nga wolofu day naan jaañ naar seen laslu seen cosaan ñoom njaañeen yi dañuy delluwaat ci naar yi dañuy wax ne benn surtout Seydina Aboubacar na Siddiq ko ñuy wax bàjjom njaañ mooy seen maam njaañ yi ngay gis ci Sénégal am na njaañ waalo am na njaañ rip am na njaañ fële ca Kajoor ak ca Njàmbur waaye ñoom ñëpp benn famille lañ ñu ngi cosaanoo ci Mauritanie boo dàqee seen càllala dañuy delluwaat ci Seydina Abubakar na Siddiq radiyallahu anhu ku ñu wax Aamar Bajom Njaañ mooy seen maam waajuram wu góor moom maam Fat Njaañ taarix nag dafa am ay riwaayaat rek kenn ku ne ak li nga li nga jot man li ma jot mooy mu ngi tudd Seydina Ousmane Njaañ doon boroom xam-xam bu mag doon kàngam ci yoonu tijaan nekkoon ab sëriñ daara buy jàngale ci kër maam alaaji Abdoulaye Niass alaaka boobu kon yàgg na ci diggante euh, ñi meññi maam Fat Diagne ak kër maam alaaji Abdoulaye Niass avant sax ñuy wax diggante Baye ak maam Fat Diagne waaye wéyjuru maam Fat Diagne bokkoon na ci sëriñ yi doon jàngale ci biir kër maam Alxaaji Abdoulaye Niass radiallahu taala anhu wéyjuru maam Fat Diagne bu jigéen ñu ko doon wax Faatu Mbuubu Konte mu dëkk ca julli xaar loolu mooy alaaka bi dox diggante waa julli xaar ak sëriñ Maamun maam hmm? maam maam maam Fatou Mbuuba Konte moomu maam Fatou Mbuuba Konte moomu woy juram la ñuy wax ma ma Fatim Kontey ma Fatim Kontey moomu moom itam boroom may la woon ndax moom mu ngi bàyyi ko woon boori Bawol ñëw ci réewi séeréer yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon foofu ci jili xaar ba mu ñëwee buuru séeréer yam fa fekkoon ndax julli xaar dafa bokkoon ci canton mag yi nga xam ne pays la woon dégg nga magi séeréer yi dañ ne ko woon ñun de li ñu ci naqari mooy buñ la yaatalee fii danga mujj moomaat dëkk bi waaye boobu am na genn genn góoru pël gu nekk foofu ba tey am na benn quartier bu ne foofu ca kaw ñu naan ko pël ga seen wayjur wa mu gisee maam ma Fatim Kontey ak leer yi nekk ci moom ak mbaax gi ne ci moom ci la wax ak séréer yi ne leen daal bàyyi leen ko mu toog ndax ku mel nii kenn du am mu ñëw war a dëkk ak yow nga di ko gàntu yàlla dogal mu dal di ñëw dëkk foofu ak ñoom ba mu fa dëkkee ak ñoom waaye lañ doon wax am na góoru séeréer ga ne ko ah ñun sunu doom yi dañoo mën a yàq de mu ne ko ah mhm. mu ne ko dañoo mën a yàq de mu ne ko waaw waaye man jotewuma ak ñoom dara li ñu bëgg bëgguma ko duñ jote dara incha allah moom nag maam ma Fatim Konté mii nga xam ne mooy wéyjuru maam faatu Mbuuba mi jur maam Fat Diagne yàlla def na boroomi may la woon boroomi sirru la ndax wax nañ ne sax amoon na soxna si jinne kon pour rek nga xam ne euh, sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Mamoun li ko li ko seq lépp ay nit yàlla yu baax lañ yu foor néeg néeg way juram bu jigéen ay mbaax ak i wilaaya ak salaax ñu nga fa ak i xawaariq ay xarbaax ba loolu moo waral e, maam ma Fatim Konte moomu mujjoon na jàpp ci maam alxaaji Abdoulaye Niass tariqa Tijaan kon nga xam ne maam alaaji maam Cheikh Mouhamadul Mamoun dafa nàmpu weenu alquran namp weenu wilaaya ci ci yaayam maam Faat Jaañ ndax comme maamam ju góor sëriñ daara woon bu daan jàngale alquran waaye maami yaayam nekkoon ci muqaddam yu mag yi nga xam ne jokku nañ ci maam Alaaji Abdoulaye Niass mu jox leen tariqa bi jox leen mbóoti tariqa bi loolu di dox ba nga xam ne maam ma Fatim Konte moomu dal jur maam faatu Konte maam faatu Mbuubu Konte mu dal di jur maam faat Diagne euh, kooku teg euh, loolu fe tegtale na cosaani Cheikh Mamoun ne cosaan bu baax la ci ne ci wàllu wayjuram bu jigéen nga xam ne dëgg-dëgg mbaax googa ne ci moom euh, lum ca boole rek mu dem li arab di wax moo immun muxwilun ci dafa bàyyi taxu nijaayu moom noonu la mel maanaam ay bàyyi taxam yëpp boo leen seetee ay waliyu lañ ay borom xam-xam lañ ndax ay bàyyi taxam mooy dooy maam alaaji Abdoulaye Niass maam Khalifa Niass maam alhaaji Mouhamed Zeynab maam Serigne Mbaye maam alaaji Babacar maam Mahmoud dégg nga boo di topp da maam Maas da ngay lima lima lim ba nga xam ne maam Chafiu doo maam Cheikh Tidiane kenn ku ne ci dooy maam alaaji yooyu ko kon ama moom yëpp euh, borom yi gëneel lañ waaye nijaayam it ñu ngi nii nii la mel ci ne ci wàllu yaayu yaayam ak ci wàlli dégg nga papa yaayam Cheikh Mouhamadul Mamoun daal di ñëw judd ci loolu am na maamam jooju ma Fatim Konte amoon na mbokk moo xam ne ñoo bokk baay te bokk ndey ñu koy wax Mudun Hafsa Konte moom dafa jaayante woon ak maam El Hadj Abdoulaye Niass jox ko nag pour nga xam ne rek ñoom famille boobu daal yàgg nañ ci mbaax yàgg nañ ci tabe waaye yàgg nañ ci wërsëg kon kii mooy way juru Cheikh Mouhamadul Mamoun bu jigéen Euh, seede yi ko bàyyi seedeel ak lettre yi mu bind ci moom mu ngi ci loxoy taalibe yi kóolute gu rëy rëy rëy euh, am na ko ci moom man gis naa benn lettre boo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wax dëgg tagg na ci sunu maam Fat Diagne tagg yu rëy bu ko defee nag kon sëñ maamu na ngoog ci loolu foofu la sosoo ndax buñ dee wax bi biographie sëriñ Maamoun buñ dee wax mbaaxu sëriñ Maamoun kooku ñi ci mën a wax bëri nañ ndax ñi doon dund ak moom ci Madina ngi fi am na ñoo xam ne ñoo moom ñoo maase ñoo bokk carrière ñu ngi fi waaye am na ñoo xam ne ci gannaawam gannaaw bi mu demee ba dëgër lañ ko xam waaye ñëpp xam nañ ko ci njëriñ ñëpp xam nañ ko ci mbaax ñëpp xam nañ ko ci am ngëneel li gën a am solo nag ci sëñ Maamun moo di lim defoon mooy zuhdul kummal boo demee ci dangay da ngay fekk Maulana Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu mu ngi misaal lan mooy zuhdul kummal mu ne zuhdul kummal laysa zuhdul kummali bi xuluwil yadi min addunya wa innama huwa bi xuluwil qalbi minha mu ne nit yàlla yu mat yi seen dëddu nekkul ne seen loxo yi dañ koy raxas ci àdduna ba mu set duñ jëflanteek àdduna duñ jëflanteek ñu ñu àdduna duñ dajale alal déedéet mu ne waaye dëddug ñu mat ñi mooy seen xol yi ci boppam moom la ñuy wéetal ci àdduna seen xol yi lañuy ñuy setal ci àdduna ba nga xam ne mën nañoo nekk multimilliardaire te du leen derangé du leen taxa am na ñoo xam ne buñ fanaanee dix millions rek dootuñ nelaw waxuma la cent millions waxuma la un milliard waaye bu dee kummal la ñoom alali àdduna yëpp nguuru àdduna nguuru penko sow bu ñëwoon ci ñoom keroog la ñuy gën a jublu ci yàlla kere la ñuy gën a gëm yàlla kere la ñuy gën a bëgg yàlla kere la gën a torox lu wàcc seen bopp ñu ngi wax ne yonentu yàlla Suleymaan bun Daawud bi ko yàlla mayee mu nguuru penku ak sow may ko alali àdduna yëpp da daan wax dagam yi ne leen bu ma xëyatee da ma fàttali sama bopp ne leen ma laa ta wala tatajabbar fa innaka abdun wa lasta bi cheyin bul rëy rëylu bul mbër mbërlu ndax yow ab jaam dong nga nekkula dara loolu nag sëñ Maamun ci la doon dund nëbbu na boppam ci kiiraayal politique nëbb na boppam ci kiiraayal dégg nga am wërsëg bu yaatu waaye boo xoolee jëfam danga xam ne xolam bi amul lenn lenn lenn lu ca nekkoon lu dut yàlla tabaraka wa taala danga gis ne sëñ Maamun dégg nga bu tëjoo mbaaw ñu ne dafa xaw a tawat rek mooy ne dem na ba banque amatul lum jox nit ñi waaye boo amee lum joxe rek day ubbi ay buntam yàkkamti nit ñi ñëw bu amee dara mu ngi woo soppeem yi mu ngi woo am di jàmmam yi dégg nga kaay daraa ngi fi lu am bokk koog nit ñi am delloo ko ci yàlla gëm way juram cheikhul islam maulana alhaaj ibrahim gëm gu dëgg wëlbati ku nekk taalibeem nekk taalibeem xaqan nekk doomam dafa nekk taalibeem ba am fathul akbar bokk ci aarifuna billahi yi nga xam ne kepp ku jonjoog moom da nga xam ne noonu la mel amee ndigalal xaas bàyyi lijaasaal ko xeeti lijaasa yoo xam ne néew na ku ko am ci njabootam gi fa tabaarakallah am na ci yoo xam ne sax ay mbuut la euh, bàyyi samp ko daan ànd ak moom ci tukkeem yu bëree bëree bëri am ci moom yaakaar ju rëy rëy am na genn kilifa gu mag ci réew mi boroom xam-xam ku baax benn jamono ñu wax ci moom xam-xam ak ngëneel bàyyi ne kii de sama maamun mi moo ko raw te kooka wax dëgg yàlla ku màgg la ku foor la ku bëri xam-xam la ku ñëpp naw la kon daal du ma guddal waaye maa ngi ziyaare waat Seyda Fat Dem euh, bu baax a baax di ko ndokkeel ci euh, maanaa bés bu rëy boobu di ziyaarawaat Cheikh Baye Mamoun te di ko ñaanal yàlla tawfiq ak najaax ak fan wu gudd ak wér yaram di ziyaara mboolem rakkam yëpp yëpp ma kenn di ziyaara Cheikh Mansour ñoom Cheikh Hamada seeni rakk di war sama jigéen soxna Fatimatu bintu Cheikh Mamoun di ko ñaanal yàlla tawfiq ak najaax ak soxnaa ma jëm ak ñépp daal bàyyiwu ma kenn kulim da nga juum di feddaliwaat sama kóllëre ak ñoom ndax man ma maamoon am nañu kóllëre xaas boo xam ne dégg nga ca Maroc lañ ko lañ ko fase woon ci teewaayu xaaj Misri euh, fii nekkul bërëbu yaatal ko def naa ci moom ñaari xasida kera biñ dajee Maroc def naa ci moom benn xasida kontaan na ca lool waaye bi mu wujjee boromam defal naa ko benn marsiya xam naa incha allah danaa leen ko dëgtal ci yàlla ànde seen mbokk Aboubacar Ba at-Tijaani wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.